maa ngi leen di nuyu euh, yéen ñëpp euh, ci seen tour euh, ak seen sant di am mbégte bu rëy a rëy nekk fii tey ak yéen ci conférence de presse bi coalition Sonko président 2024 di organiser maa ngi jéggalu président jante ci waxtu bi ma ñëw ci tardé bi ñetti fan a ngi ñu ngi nekkoon Daaru Musti Daaru Marnaan Touba Mbacké Bambey jurbel ak ñoom seen foofu laa jóge nii foofu laa jóge jaar fii jotuma sax dem sama kër pour mun a euh, euh, changer samay yére euh, li ñu li ñu nemmeeku fépp fu ñu dem ci dem jaale mbokk yi nga xam ne ñoom la nguuru Macky Sall faat seen bakkan ñu mun si ràññeeku ku mel ni Papito Kara dem nañ këram démb jaale ko baayam ak waa këram Euh, fépp fu ñu dem ci quartier yi ci gox-goxaan yu gën a sori li ñu nemmeeku mooy askan wi Ousmane Sonko ak Pastef ak patriotes yi la ñu jox seen xol seen xëtër seen gët ak seeni nopp te loolu ñun ñu gis président Macky Sall moo ñu ko gën a xam président Macky sàll moo gën a xam ne ci gox-goxaan bu gën a sori ci quartier bu gën a sori ci Sénégal les citoyens sénégalais les populations sénégalaises se sont emparées du projet de PASTEF se sont emparées du projet et de la vision du président Ousmane Sonko et par conséquent mooy li gars yi doon wax la théorie devient une arme quand les masses s'en les populations se sont emparées du projet de PASTEF du projet et de la vision du président Ousmane Sonko loolu moo tiital président Macky Sall loolu moo tiital APR loolu moo tiital Benno Bokk Yaakaar ba ay weer a ngi wala ay at a ngi nekkuñu di waajal élection présidentielle waaye sélection présidentielle la ñuy waajal loolu ay weer ay at a ngi ñu ngi koy wax askanu Sénégal février 2024 Macky Sall du élection la bëgg a organiser sélection maanaam tànn ñi nga xam ne ñoo war a voter ba pare tànn ñoo xam ne ñoo nar a dem ci élection yi ñoo ñoo nar a nekk en fait mais candidat muy ñaari tànneef moom mooy wax kan mooy voter ci réew mi ndaxte boo nekkee gox sàngam mu xam ne foofu dafay ñàkk doo bindu boo bindoo doo jot sa carte boo jotoo sa boo jotee sa carte mu ne yow mii nekk dëkk sàngam ci guddi Goudiry wala Médina Yoro Fula yaa ngi war a voté Chine wala Australie wala France. booy voté Chine wala Australie wala Italie wala France mu ne yow yaa ngi voté euh, euh, boo nekkee Chine wala Australie wala France mu ne yaa ngi war a voté xawma ma Médina Yoro Fula wala. Euh, maatam wala cees wala feneen ñu naan déet mu ne moom mooy tànn ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk mais candidat depuis 2019 président Ousmane Sonko jël troisième ci élection présidentielle bu 2019 te ñun gëm nañ ne président Ousmane Sonko sax jëlul troisième moo jëloon deuxième ci la commencé tiit ndaxte xam na marge de manœuvre bi ñu amoon boobu la ñu commencé seen complot 2019 ñu xam ne bu ñu deful dara le cinquième président de la République du Sénégal mu ngi tudd Ousmane Sonko 2021 ñu commencé seen complot yi ak mbiru Adji Sarr dootuma ci dugg je crois que ñi ma jiitu wax nañ ko bu baax a baax euh, li ñu fi dajale tey moo di ne li ñu gën a métti mooy conseil constitutionnel dafa mel ni dafa jël dogal dugal boppam ci complot boobu complot bi ba tey jii nii APR la woon Bennoo Bokk Yaakaar ñenn ci juge yi ñenn ci procureur yi ak administration sénégalaise waaye depuis waxtu yi passé conseil constitutionnel nu mu doxalee ci dossier parrainage bu Bassirou Diomaye jaaxaar Faye ak ni mu doxalee ci Ousmane Sonko mun nañu wax tey jii ne conseil constitutionnel dafa boole boppam ci li nga xam ne moom mooy complot contre Ousmane Sonko complot contre Pastef complot contre les patriotes waaye mbokk yi ñun ñoo amul ab seetlu rek président conseil constitutionnel monsieur Badio Camara bi mu génnee ak yére wolofam jàkkaarloog les mandataires des candidats. boobu la ñu waroon commencé lox ak tiit ndaxte greffier conseil constitutionnel ñoo war a wax ak mandataire yi président conseil constitutionnel du wax ak mandataire maanaam acte boobu Badio Camara posé li mu doon wax moo di ne je prends en charge personnellement le dossier du président Ousmane Sonko naa ci ñëwaat waaye mbokk yi wax ji ñuy wax tey. muy wane ne conseil constitutionnel dañ ko soppar ñi def ko un laboratoire pour un pour un hold-up électoral un laboratoire un machin au service de Macky Sall de l'APR et de Benno Bokk Yaakaar pour un putsch électoral en téléchargement pour le 25 février bii di ñëw euh, conseil constitutionnel boobu jaaxal nañu conseil constitutionnel boobu dafa raté une grande occasion d'exercer son devoir d'ingratitude loolu foofu lañ doon xaaree conseil constitutionnel mu exercer son devoir d'ingratitude mu wane ne naam yow yaa ma nommé naam yow yaay président conseil supérieur de la magistrature waaye dama war a exercer en tant que conseil constitutionnel mon devoir d'ingratitude atte te yàlla tax atte ci turu askanu Sénégal donc conseil constitutionnel boobu dafa nangoo nekk bokk ci banditisme d'État bi nga xam ne moom la ñu ràññee ci DGE moom la ñu ràññee ci CDC moom la ñu ràññee ci président Macky Sall ni muy manipuler la police et la gendarmerie contre les patriotes pour la liquidation de la candidature du président Macky Sall loolu mooy euh, euh, pour la liquidation de la candidature du président Ousmane Sonko loolu mooy la principale information le conseil constitutionnel est devenu de manière décomplexée complice de manière décomplexée et c'est l'occasion de féliciter jaajëfal suñu ay équipe ñoom Aboubacry Sidi Sonko ñoom Laxat ñi fi jaar ñoom Isidore Diouf ak Fatima Mbengue bi nga xam ne euh, moom moo jiite woon équipe bi ak mbooleem ñi bokkoon ci équipe bi ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon sur le terrain di août les parrains pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye donc conseil constitutionnel dafa bokk ci complot bi de manière décomplexée d'ailleurs c'est l'occasion ak liggéey bi nga xam ne suñu techniciens yi def nañ ko ñu wan leen ko nous appelons nous invitons les techniciens du conseil constitutionnel à un débat public ñu indi ñoom seeni clé ñu indi ñoom seeni machine ñu indi ñoom seeni xam-xam ñu wan askanu Sénégal ñoom fan lañu sukkandiku pour wax ne Bassirou Diomaye Diakhar fay dafa am plus de douze mille parrains yoo xam ne baaxul ñun suñu ay techniciens ñun itam génnee ñoom seeni clé seeni machine seeni ordinateur seeni xarala wan ne conseil constitutionnel li mu wane dafa inventé conseil constitutionnel li mu def du dëgg dafa dugg ci biir conseil constitutionnel jël suñu clé soppi ko changé ko te loolu fraude la le conseil constitutionnel est pris en flagrant délit de fraude conseil constitutionnel il est pris en flagrant délit de fraude et c'est très dangereux et c'est inacceptable et c'est tout simplement grave et ça ne passera pas duñ ko bàyyi mu jàll nous les invitons à un débat public technicien contre technicien ndaxte jàmm ci Sénégal jar na ko bëri na ci Afrique réew yoo xam ne jàmm amatu fa li ko waral mooy coowal élection balaay élection di am wala après muy contentieux post électoraux ñun nag Sénégal dañoo bëgg a fànkal suñu réew ak suñu askan ñàkk jàmm ak jafe-jafe yooyu am ci yeneen réewu Afrique ak yeneen réew ci àddina bi donc jàmm ci Sénégal jar na ñoom ñu indi ndaxte tuumal yi suñu techniciens yi teg seen ndodd diis na diis boo xam ne foog ñu setal seen der et nous les invitons à un débat public clé contre clé ordinateur contre ordinateur fichier contre fichier donnée contre donnée askanu Sénégal atte ndaxte ay borom xel rek ñoo ay borom xel rek ñoo fi nekk euh, mais fan yi passé dégg ngeen ma d'abord ci assemblée ensuite ci biti assemblée may wax ne ministre des finances atum 2022 Sabodala Gold Operation d'accord muy société buy ut wurus fële ca Sabodala dafa waroon fay 150 milliards ministre des finances ne 14 milliards lay fay mu fay 14 milliards muy une différence de 136 milliards mooy renoncement fiscal de 136 milliards est-ce que le gouvernement du Sénégal est corrompu est-ce que le gouvernement du Sénégal dafa jël commission de 136 milliards est-ce que gouvernement du Sénégal dafa jël ay pots de vin de 136 milliards est-ce que gouvernement Sénégal dafa jël ay bakchich de 136 milliards quel est le lien ak li ñuy waxtaan nii est-ce que c'est la première fois muy def des cadeaux fiscaux de 136 milliards quel est le lien ak li ñuy wax nii mooy ab gouvernement ab état buy commettre ay crimes économiques et des crimes de sang bu yóbboo nga xam ne fu muy mujj mooy crime politique mooy crime élec électoral xam nga bi ñuy nekk xale li ñu wax mooy qui vole un œuf volera un bœuf mais ku sàcc alalu askan ku sàcc bakkanu askan maanaam di faat di sànq askanam nécessairement c'est une loi fi ngay jëm mooy da ngay sàcc élection parce que yow xam nga ne li nga def askan wi askan wi mënu la votel bu élection yi jaaree yoon te xam nga ne buñ la remplacer fi muy mujj mooy ñi lay remplacer dinañ découvrir say crimes économique et crimes de sang et buñ ko découvrir soxlawul sax chasse au sorcières ñun coalition Sonko président 2024 chasse aux sorcières taxu ñaa jóg waaye seeni jëfin moo leen di atte ku reyul doomu jàmbur sa jëfin moo lay atte ku rey doomu jàmbur sa jëfin moo lay atte ku sàcc 136 milliards de francais CFA jamono ji nga xam ne ñu ngi séddale baykatu Sénégal yépp ci 15000 villages juróom benn téeméer charrettu mbaam nga ne noonu nga bëggee am souveraineté alimentaire say jëf moo lay àtte donc c'est une loi lii ñuy dund nii c'est normal crime économique crime de sang crime électoral moo ci topp putsch électoral moo ci topp ku sàcc élec ku sàcc alalu askan wi li ci topp mooy sàcc élection askan wi ñun nag ñoo ne duñ ko nangu duñ ko seetaan du fi am euh, ñu ngi wax mbirum euh, nu ñu koy waxatee parrainage parrainage parrainage Bassirou Diomaye Faye duñu seetaan ku ko sànq ci ay fen ci ay jaay doole ci loo xam ne jaarul yoon duñ ko seetaan dañoo bugg mu leer de dégg naa mardi la ñu convoqué tous les mandataires pour ñu ñëw def seen remplacement donc Bassirou Diomaye Diakhar incha allah mu wara indi juróom benn junni ak ñeneen du ñu seetaan ci ay tappale ci ay waa conseil constitutionnel bu dee am nañ fit seen technicien nañu toog suñu ay technicien toog ñu indi seen clé suñu technicien indi seen clé ñu indi seen ordinateur suñu technicien indi ordinateur askan wi àtte àddina bi àtte ndaxte suñu baat ca kaw conseil constitutionnel dafay wuruj conseil constitutionnel wóolootuñ ko conseil constitutionnel dafa manipuler suñu clé dafa dugal suñu clé loo xam ne ñun dugal wuñ ñun du ñun ñoo ko fa dugal parrainage yi nag mbokk yi lim may fàttali maa ngi daaneel lim may fàttali mooy mbokk yi maa ngi xalaat Abdou Karim Gueye xurum xaax maa ngi xalaat Cheikh Oumar Diagne maa ngi xalaat Yolande Camara maa ngi xalaat Khady Badiane maa ngi xalaat Sylvestine Mendy maa ngi xalaat Aliou Gérard Koïta ak ñoom seen xam ngeen ñoo ñooy ñan 22 mars xaw ma 23 mars 2022 yaa ngi di fàttaliku ñun ñoo demoon def manifestation buntu ministère de l'intérieur contre le parrainage damboj mu nga ca woon ñu jàpp leen dugal leen commissariat centrale ak commissaria plateau vingt deux heures vingt trois heures vingt une heures ñi nekkoon plateau commissariat plateau ñu dëggal leen ci benn camionnette bu lëndëm kurus ñu dugg fa fekk fa ñu toll ni xaw ma bombardier ñu sol ay kagul ñu dóor leen dóor leen dóor leen ba seen yaram di tënd ndiir ay jigéen ñu wàccee leen minuit sans téléphone sans xaalis ci àll technopole ci àll filaawa géejawaay man ñu wàccee ma ci àll yoonu Thiès ñii ñu wàccee leen ci digg péage lii lañ doon xeex lii lañ doon bañal suñu réew moo tax je pense aussi à quelqu'un comme Pape Abdoulaye Touré ndaxte dañ ko dooroon dooroon jamono jooju Daouda Gueye Ousmane saar ak ñoom seen bay Bayna Gueye Pape Abdoulaye Touré mu ngi nii kaso ginnaaw bu ñu dammee ñaari loxoom ñaari tànkam lii lañ doon xeex ndekete ñoom biñ ñuy def loolu doon def loolu xamoon nañ ne ñoom parrainage bi ci la ñu mun a langaamu pour def seen sélection prési seen seen sélection présidentielle pour faagaagal candidature yu mel ni candidature yu président Ousmane Sonko. Euh, mbokk yi dama bëgg a lancer un appel aux patriotes. patriotes lay waxal mbokk yi dafa am ku wax kaddu bu am solo boo xam ne ñun patriotes yi kaddu googu. dañ ko war a teg bu ñu tegee suñu alxuraan suñu bible suñu tooraa dañ ko war a teg à côté kàddu googu dafa ne dans une forteresse assiégée toute dissension est trahison dans une forteresse assiégée toute dissension et trahison maanaam jamono jii nga xam ne ëpp na ñaari at Macky Sall ak i gendarmerie wam ak i police ak i nervi wam mu ñuy tongali ñun ñëpp à commencer par le président Ousmane Sonko waruñu wax wala jëf loo xam ne dañuy féewale ñun suñu biir ndaxte dañuy néewal doole ci ki nga xam ne moo moo ñu bëgg a sànq bëgg ñu faagaagal. Mhm. waxuñu nag ne waruñu ñàkk bokk gis-gis mun nañ ñàkk bokk gis-gis waaye lu ñu munti wax ak lu ñu munti def nañu sàmm l'unité des patriotes nañu sàmm bu mu menacé nekk benn bi ñun ñi patriotes yi wala nekk bi ñu waxee. Bassirou Diomaye Faye am na 12000 yoo xam ne ci parrain yi baaxul lu ñu wax ana Fatima Fatima lu mu def ana équipe am ana waa IT mbokk yi nañu moytu loolu mis loolu benn misaal rek la ci li nga xam ne ñenn ci ñun waxuma faux compte yi faux compte yi suñu yoon newu ci bàyyi leen ñooñu ñuy wax lu ñuy wax ñun xam nañ faux compte yi waaye ñenn ci ñun di alimenter à l'interne et à l'intérieur débat yoo xam ne d'accord bu ñu moytuwul dañuy féewale et nous n'avons pas le droit parce que ce serait un crime de féewale suñu bopp jamono ji nga xam ne ay nit dañoo ñàkk seen bakkan pour Sénégal pour projet bi pour Ousmane Sonko bu ñu defee leneen kon bu boobaa ñun gënuñu leen gore donc ça c'est un message bi may lancer aux patriotes focus nañu focus nañu waxtaan. amul problème waaye nañu focus toute dissension dans une forteresse assiégée est trahison du projet est trahison de Ousmane Sonko est trahison de nos martyrs est trahison de nos plus de mille nekk mooy euh, victime du parrainage de tout le pays unissons-nous victime nag yi may wax mooy les victimes patriotiques mm, waxuma candidat wuyaa wuyaa yi nga xam ne xam nañ ne ñooñu ay candidat APR Benno Bokk Yaakaar ak Macky Sall lañu les victimes du parenage du camp patriotique unissons-nous pour fair face ñun ñii nekk fii ci coalition Sonko président mouvement ak parti yi ci bokk dañoo yàgg wax ne ñun ànduñu ak parrainage bi waaye comme dañu jaay doole réew moo xam ne maanaam CEDEAO bu waxee ne Sonko amul dëgg. état bi ne gongo bu CEDEAO waxee ne parenage bi baaxul état bi ne maa comme dañ ñu jaay doole amul problème ñun dinañ dem ci parrainage bi waaye suñu position de principe ça toujours été parrainage bi baaxul ba ci biir assemblée nationale donte ñun Pastef xam nañ ne on a plus de vingt députés ne n'étions pas d'accord et na n'avons pas voté la loi parce que dañoo wax ne day faagaagal les autres te ñun ñëpp nañu fexe ba ñëpp ku bëgg a bokk mu bokk donc nañu ànd jàkkaarloo conseil constitutionnel ndaxte lii ñu def pour Bassirou Diakhar Faye mën nañ wax ne moom lañu def yeneen ak yeneen candidat kon bu ñu boolantee suñu doolee lii ñu gis ci ñaawteef yi conseil constitutionnel def contre Bassirou Dia Euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay def nañ ko yeneen candidat nañ ko ne fànn ba nga xam ne Sénégal yëpp gis ko Afrique yëpp gis ko addina bi yëpp gis ko xam ne c'est un putsch électoral en téléchargement c'est un hold-up électoral qui se préparera et ça ne passera pas ça ne passera pas Sonko cinquième président Sonko est encore notre candidat te duñu seetaan ñuy faagaagal la candidature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye je vous remercie